ñoom ñooy jiite comité de pilotage bu ànd sàmm jikko yi ànd sàmm jikko yi nekk ay association yu bëri Sénégal yoo xam ne ëpp nañ téeméer ñu ëpp ci ñoom nag euh, dañoo taxaw ñu àndandoo ci ay waxtaan depuis lu ëpp ñetti at a ngi ñu xool ne sunu askan mi ngi yàqu que am na lu sànkar su dugg sunum réew yoo xam ni dafa jóge bitim réew bokkul ak sunu aada ak sunu cosaan bi nu xamee loolu ñu wër ci ñeent fukki département ak juróom yu Sénégal yëpp wër ci diaspora bi wax ak sénégalais yi ak fu nu mën a nekk ñu présenté leen ab pétition di leen wax ne sunu réew am na ñu fa bëgg a dugal ngóor jigéen pour lawal ko ci sunuy tout tànk lawal ko ci sunu askan te loolu day màbbal sunu ngëm-ngëm day màbbal sunuy diine bi loolu amee ñu wër Sénégal gépp dem seeti kilifa diine yi ak kilifa aada yi dem nañ seeti jàngu bi dem nañ seeti ñi nga xam ne ñoom ñooy sunu mbokk bois sacré bi mooy ñi tuddee animiste ñu dem waxtaan ak donc képp koo xam ne sénégalais nga parce que li ñuy xeex ñun du mbirum diine kese naam diine ngi ci biir parce que diine yi ma la fa limal ñoom ñëpp seen diine day bañ ngóor jigéen mais mbirum société la ku ci nekk am nga droit ni sama réew nii laa bëgg a doxee nii laa bëgg di aare sama askan ñu ne kon ñun sunu askan du ñu seetaan ñu leen di yàq parce que ngóor jigéen day màbbal ngëm-ngëm day màbbal diine day yàq aw askan loolu moo tax bi ànd sàmm jikko defee loolu ci turu Sénégal ak turu xalif généraux yëpp ñu dem jébbal leen pétition sénégalais yi ñu ëpp ci ñoom signé pétition bi bi ñu paree xalif généraux yi am na sax ñaar ci ñoom muy xalif général des Mourides ak xalif général de Tidiane ba ñu signé pétition ba pare dañ caa toftal ab leetar buy wane ne ñoom signature bi seen bos la ñoom ñoo ko signé ba no bindal seen bopp lettre bi dolli ko ci pour dëgëral seen signature wax ne ñoom dañuy seen càkkutéef mooy ñu criminaliser ngóor jigéen képp ku ko fesal ci mbedd yi ñu teg ay daan yu diis yoo xam mën naa dem ba ci fukki at ci kaso bi waaw lii lañ wax ni bin ko waxee ba pare danoo dajale sénégalais yëpp ca place de l'obélisque place de la nation ñëpp ñëw ñu àndandoo ni ngóor jigéen ñun senegal àndun ci bi ñu paree ci loolu ñu daal di dem nag daal di euh, waxtaan ak ay député yoo xam ne ñoom ñoo ne d'accord nañ pour ñëw ànd ak ñun ci loolu député yooyu sax ñoo bind loi bi ñun binduñu ko proposition de loi bi député yii fi ngeen fi gis tey ñi leen fi nekkal ak yeneen fukki député yi ñëwul tey te ñii wax ci seen tur ñoom ñoo dajaloo di réunion seen biir di bind proposition de loi bi ba mu ba déggoo ci ak ñun dañu ko présenté ñu ciy waxtaan ba mu déggoo ci. léegi nag tey li doon andi fii mooy nag ñu fesal sénégalais yi ni liggéey bi mat na ñun leen ci waroon def mooy wax ci turu Sénégal wax ci turu kilifa diine Sénégal yi. donc waxtaan ci tamit ak ay député yu ko nangoo yóbbu assemblée nationale pour ñu voter loi bi loolu lépp def nañ ko tey lañ leen ko doon jébbal ña nga nee di dem ca assemblée nationale pour bu demee teg ko ci table président Moustapha Niass ci ñetti waxtu tey lañ ko bëgg a def. bu ko defee léegi nag ñu déglu leen buñ leen dégloo nag ñu ngi yaakaar ne bu dee suñuy député lañ du ñu député France du ñuy député ay lobby du ñuy député ay franc-maçon ay député Sénégal lañ. parce que Sénégal moo leen di fay député yeeg ku nekk Sénégal moo lay fay sa salaire assemblée nationale ba la fay dox lépp sénégalais ñoo ko moom. kon nag sa boo ko yónnee daa war a gaaw ca yónni ba comme ñun ñooy ñun ñoo leen di liggéeyloo te ñun Sénégal gépp danoo am càkkutéef pour ñu neenal lépp loo xam ne ay affair tappalal la suñu lu jëm ci mbirum góor jigéen. kon nag sa sa surga boo koy liggéeyloo daa war gaaw ndaxte yaa koy fay bu dul loolu nag danga nga rocci la nga yoroon ci la nga ko joxoon ngay nangu kon nag député yi bu ñu bëggee jàmm te ñu mu wóor leen ni suñuy député lañ ñuy voté loi bi balaa mois de juin parce que juin la assemblée nationale di tëj bala ñoo tëj nañ ñu voté loi bi bu ko defee jàmm na ñooñu. lan ngay wax ñoom ñi nga xam ne ñu naan da ngeen di def ay menaces seen si seen. waa ñooñu koy wax xama wax dëgg yàlla ñun ay reetaan la def ndaxte fi loi buñ fi mos a def proposition daa am li ñuy tudd plaidoyer daa am ñu dem def càkkutéef bi kon ñun li def ñun ànd sàmm jikko yi mooy. dañoo dem waxtaan ak ñi nga xam ni ñoom lañ ci war a waxtaanal ñoom ñu ne ñoom d'accord nañ pour jël loi boobu dem déposer ko ñoom ñoo ko sax bindi ñoom député yi te fii loi bu ñu fi mës a voté ay nit ñoo ko ñoom ñoo def plaidoyer bi bi ñuy bi bi ñuy andi criminalisation viol muy siif boobu ay ay ay ay jigéen ñoom ñoo dem def seen i association wër sa wër wër ci député yi fii Ndakaaru demuñu sax ci région yi fii la ñu yem Dakar def seen i marche est-ce que marche ba kon menace la woon def seen i marte ne nañ leen criminaliser viol ñu defal leen ko ñoom député yi ña ña ko d' dem jël ko dem présenter ko assemblée assemblée voté leen ko waaw kon ñun ñun tamit la même chose dañ def ñun kay am nañ droit def seen plaidoyer ay député an ñëwal seen bopp ne ñun lii ngeen def plaidoyer ci turu Sénégal ñu ne daan ko jël dem yóbbu ko parce que ñun mënuñu ko yóbbul suñu bopp waaw ñooñee koy ñëw fii ku leen menacé ñoo fa ñëwal seen bopp ñëpp gis len ñu ñëw di liggéey ak ñun depuis lu mat ñeenti weer ngi nii ñoo ngi liggéey ba tey jii loi bi sax ñoom ñoo ko bind ñoo ñëwal seen bopp jël si ko ci kanamu euh, journaliste yi est-ce que danoo yëkkateew yat wala jaasi pour tiital leen ñoo ñëwal seen bopp ñoom ñëpp ñu ne ñun ñett ñi ñi ngi wax ci yeneen euh, turu fukki di député yi des muy fukki di député ak ñett yoo xam ñoo ànd ni ñoom dañuy dem déposer loi bi waaye ku ne man ñun dañ leen a menacé nag wax dëgg yàlla ab tappalekat nga ñun menacé wuñ kenn li nu bëgg daal mooy am na député yu ko d'accord ne daan ko porté député yee ca des it ñu ëpp ca ñoom nee nañ bu ñëwee daañ ko voté léegi nag nañ sant yàlla te xaar ndax Sénégal dina def li mu war a def parce que li ñu gëm mooy mënoo nekk ndaw réew mi ba noppi di jëm boor bu waa réew mi jëmul waa réew mi dañoo bëgg ñu criminaliser homosexualité kon képp kuy ndaw réew mi bu dee doon ndaw réew beneen réew kon da ngay ànd ci loolu dem voté ko bu ko defee képp ku fi bëgg a def parce que place bii nu taxaw ñaari góor jigéen tax dafa taxaw nañ fi sëy fi tey jii fii ci grande mosquée te te dara mucc ci dara mujj ci loolu nag ñun duñ ko fi nangoo tey duñ ko fi nangoo ëllëg ñi ñuy jiite nag dañuy nuru bu ñu mënta nuur dañ ñu abal ñu teg fi ku ñu nuuru ku nangoo ñoo sàmmal suñu mbës ngëm-ngëm nam ñoo sa sàmmal suñu pas sàmmal ñu suñuy diine sàmmal ñu suñuy aada sàmmal ñu suñuy cosaan loolu lan soxla ñun ci ku ñuy jiite ku ñu jiite te nanguwoo def li ñu bëgg danga ñuy abal